fu ñuñ ci bët salum senegal nekk ci sin saluma fi nak ngir dem girnda faw nga waktu bey xuus bala jël gàll fii nak di nga daw ab diir bala romb ay dëkk yi ci mel ni jam ñaajo baut wala sax famine girnda di ap communauté rurale bu nekk ci arrondissement bu ñojoor ci département bu fundiouñ ci région bu fatik ci bi dëkk laaji saax daal di fekke baax ginnaaw coow lii ak Ousmane Sonko waa dëkk bi ñoo xëy daje mu di nag gulet ginnaaw boobu la coow ngir nag àddu koon ci dossier bu mel waaye kan mooy Adji Raby Sarr rakk joo xamante ne soo ma laajee man dinaa sawar a tontu ci moom ndax ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn papa man may seen taaw nit ku neex a bokkal la nit ku neex a nekkal la nit ku am yar la nit ku am diina la nit ku fonk ay waajuram la waaw loolu moom dañ koy wax ba keroog la ñuy sàngoo suuf ndax loolu la dund ak ñun dama bëgg ñiy wax te di seede ñii ay fo ay footante ñii ay ñii di wax naan mu ngi am doom ñii di wax naan mos na sëy dama koy waxaat billaahi wallaahi taalaahi aji mosut sëy mosut am doom ñoom ñi seen mbokk ñooy sakk ci yoon mu àtte dossier bi ngir ku nekk xam fi nga féete. ñu jël dossier bi xam ne ñun ñi mbokkam soxla nañ ñu àttale bala waa ji waat li Adji Sarr wax bala ñu arkura Sénégal xam àdduna si xam coow bi na soo si bari te loolu aussi dinaa ko clé fii ji daje wax na ne Adji am na doom sey naa loolu du dëgg ngeen balal ma si moom bi loolu amul waxoon naa ko si jamono yàlla waxaatoon naa ko gën naa ko waxaat tey nag maa ngi ko gën a firnde si si si kanam population Jirna mu am liberté comme ni nga xamante ne Kim Sekal ni mu amee liberte waaw mu amee noonu liberté am na liberte mais mu nekk ci boppam nit ñi tamit xam ne nit la xam ne ab sénégalaise la xam ne dafa jote ak nit te am na droit ci li mu def waaw ñu bàyyi ko ci li mu def ba yoon def li nga xamante ne moom mooy liggéeyam te am nañ ci yaakaar waaw loolu da la ñu bëgg beneen soutien bàyyee ko bitim réew moo fa teew ci dëkk ba nag ngir sàkku justice Françoise Hélène Gaye jiite ab kuréel ngir ñu aar ak ak yelleefu Adji Sarr dossier bi dañ ko war a traité

physiquement ëpp leen poids ci société parce que góor moo ëpp poids ci société bi léegi bu fekkee ni nag dañoo permettre que exemple bi xale bi ak li dund ñu dossier boobu teg ko de côté wala ñu def euh, benn jugement boo xam ni day mel ni dañu masla xale yi dootuñu génn ci di wax ni diw def na diw yegg na man diw wala diw Donc il faut que dans ce dossier-là, nous donnions un signal positif aux victimes qui, sont, qui, sont, qui taisent leur douleur,

association yi te du ñu mësal wax parce que dañuy ragal conséquences yi. jigéen na moo yëngu nag ngir wax ni aji saar am na ay mbokk yu ko taxawu te jàppale ko dëkk bi mu juddoo nag di wooteeb jàmm ak daal te yoon def liggéeyam ngir àtte boobu dossier ndax ku nekk xam fi mu féete.